جلتي غناو بنو سانتي سونو بروم سبحانه وتعالى جلتي سيننتيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نونغي بالحق نيب لون ييغ لون ييغو تاي بالو حق نيب لونو اك لون خاموت يالنا يالا بولي delu di ndokkel julit yépp ci jaamu yàlla gu mag gi nga ci lañu jóge muy weeru koor bi yàlla bu mu doon suñu mujj koor e, dem na ni gan gu fi ñëwoon ba tàggu ko e, yóbbale ay yëf yëfaanaam yemi yóbbale dana ca bokk fàttaliku gu muy fàttaliku ci jaami yàlla yi taxawe woon ca rawante ca lool bu demee bay nettali nag yàlla na nu yàlla dimbali ba lam nuy nettalil moom doon lu neex a dégg ndax bis dina ñëw ñu weer ko làññ ci mbooloo mi ñëpp gis moo tax su ñëwee ba wéy nañ xam ne ubbiwaat weneen xët ci suñu dund suñu pas-pas ak suñu jëflante day daal jot ndax xam moos bari woon na ci ñu ci tënkoon seen bopp yam ca kepp weer wépp ñu nekk ko ci lu baax yàlla na ko yàlla nangu waaye nañ xam ne yàlla mi ñu ko séqaloon bi ñu waree it day wéy ñu di ko séq ak moom euh, jullit dëgg dëgg nag te wolof benn baat la ci am jullit la ko tudde waaye ci làmmiñ bi mu doon wàcc da koo tàggale muslim ak mu'min yàlla nee na woon bi gaa yi dañuy ñëw ne aman na waaye ne leen teel na bal lam tuminu walakin qulu aslam na yaar yooyu nag muslim ak mu'min yépp kenn ku ci nekk ci ñoom tàmbalee ci muslim jëm ci mu'min moom bu yàlla joxoñee waxtu wuñ ko bu mu joxoñ ne nañ fa jaamu yàlla danañ dem jaamu ji yàlla waaye buñ ci jógee it seenu doxin du soppiku mbubb mañ soloon la ñuy sol lañ doon def la ñuy def yàlla noonu yàlla ba suñ jëf yooyu bokk ca ñooña te yàlla musal ñu ñu bañ a bokk ci ñi nga xam ne bu koor ga ñëwee ñu kër këri bu koor jàllee ñu ne waat teg yàlla nee na woon bu kenn jaar ci yoon wa jëm ci dëkk ba bay seen dëkk ba wàññeeku wala mu lajj yàlla noonu ci yàlla musal ولا تكون كالذي كالتي نقضت غزبها من بعد قوة أنكثا وينين يتكلم كل شيء سكون يخي من نجيت أي مروم من أن نجيت سكورجي ني دو تخوي بري بوم تتخو كم نيخ من نجيت نيب واي من نجا دس جناو نيب جيت ولا يالن شاء الله موسى واي بسنج نيو كأنه كل شيء نك ني نقولي دار ما مايلين خداولا لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه سخنا عائشة نانا جنت بي صلى الله عليه وسلم لاج نانكو بيس جفي اي اب جام دي ديف بان مو تي گنال سوني بروم منوكو با تي گنا صح كون بو نان خامنا بيس نغي نيو بو خامنا لو واي ديفون تي ويرو كور ولا گناو كور لپ ñepp yi ci yunabbaw al insaanu yawma idin bi ma qaddama wa axar yàlla nañu yàlla dimbali li ñuy defa li ñuy defa kës néew mu néew mu bari tamit lu baax yàlla nañu yàlla dimbali bay mën koo saxam ñu xam ne daal weeru koor wi yàllaa ko moom te yàlla lañ séqaloon ci weeru koor yi weerin yeneen weer yi ci des yépp it te ab joxañam daan nekkoon ci weeru koor bi kon ñi nga xam ne dañ doon def saa bu noddu jotee ñu dem ca jàkka ja nañ xam ne jàkka ja ma nga fam newoon waxtoo ma nga fam nekkoon yàlla mañ ko séqaloon ma nga fam nekkoon ba tey te fu ñu nekk nit ñuy wetti ñi nga xam ne dañ koy doon jàng alxuraan di góorgóorlu foo doon fekk ñu ko jukki wala def salawaatu ala nabi nañ xam ne yàlla noonu la. mi ngi ci waxtu wu nekk ak fu ne du ko ñuy dàkk ndax jël wér koor ca jaamu ci yàlla bu jeexee mu bàyyi day mel ne kuy dàkk yàlla di dàkk fi barab di moom bu jeexee yàlla toxu dem feneen déedéet suñu borom nee na xanaa xamu leen ne yàlla euh, di xam lépp. fu ñaar nekk moo leen ñetteel fu ñett nekk moo leen ñeenteel fu ñeent nekk moo leen juróomeel fu juróom nekk moo leen juróom benneel fu kenn nekk sax moo ko fa ñaareel ak lu mbooloo ma bari bari bu ñuy lim naan téeméeri ñu dafa fa nekk nañ xam ne am na téeméer ak benn benneel ba mooy suñu borom subhanahu wa taala ma yakunu min najwa salat illa huwa rabiahum ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما amilu يوم القيامة كن yu baax yi ñu ci doon def di ay bernde di jàng alxuraan di def ay nañ xam ne weeru koor jàll na waaye lu ca waaye man na ko wéyal ndax yàlla moom ko séqaloon mi ngi gën a gis mi ngi gën a xam yàlla nu yàlla dimbali lañ ca defe ko su néew mu làqal ñu ko fu yàq yeggul nag dafa am ku ganee si min bar yépp jëlkat bu sa min bar ma euh, wax wax ju leer nañ joo xam ne mën naa doon ab dénkaane mën naa doon ab yóbbal mën naa doon it soññee te ñu newoon ca waa ca yoon wa kooku mooy ki nga xam ne fu mu dem mën na faa jiite ajjuma sax waxaale wuñ bis yi nga xam ne dañ ciy julli ay naw ay ay ay li ko ko may mooy moom daa mën a fal ilimaan day fal ilimaan kuy fal ilimaan nag fu mu dem mën na faa jiite doon doon ilimaani kooka moo waxal boppam kenn jot lu ko kenn néewutit néewutit ne nee na maane la wax te suñu Abdul Ahad Mbakke waxoon na ne maane fu mu teewee duutu doon dara Euh, kàddu yoo xam ne gàtt na tegtala ne fi ab jullit war a jëm ñépp la ko boole la ci jiitu dañ ciy jël rek ñetti tomb yu gàtt wala ñeent moom laay jëkke dafa mujje ne moom li tax mu jël kàddu bi euh, daa toll fa mag ña tolloo bu ca yemoon it ñun ñu gëm ko waaye def ko ay at ndax am naa nangami at ku dem ba am nangami at yooyu mu wax nag dëkk bu mu mën a doon eh, ay boroomam di ay màggat ñoo fay nekk ak ña leen di dab di ay mag waaye ndaw nekkatu fa dafa mel ni foofu yëg na bu baax a baax yan bi ko yàlla yan te nit ñi jaar jaarale ko ci loxoy nit ñi moo tax mu war a wax xam na lu muy wax nag ak ni mu ko bëgge waaye daa am jafe-jafe wax ci boppam ndax moytu te yu bari dal na ñiy wax ñépp ñaar la ñuy waxal boroom xam-xam ak ku xamul dara boroom xam-xam moom di ko wax lu mu xamoon amul njariñ ndax nee nañ bukkut ci xam-xam di wax loo xam ne ñépp a ko xam waaye bukk wax lu kenn xamut yow képp yaa ko xam muy benn kon wax ak boroom xam-xam nee na moo gën a jafe ndax su fekkee ci lim xamoon ngay wax wax ja amul njariñ te moom daa bëgg lu muy wax rek ak ku mu doon lu amal nit ñi njariñ keroog nag feeñoon nee ñaarelu ki ñi waxal moy ku xam nee ki xamu dara yit leg leg muy déglu kuy wax ko xam ne su waxe ba noppi danaan ki dal dof la waxi dof la wax ndax limi wax mom dong mako amul ben tektal bu muy tektale buy wane ne li muy wax fi la ko jele mom dong moo ko xam kon lool ko ko a déglu lool nak bokk yi day daal am ñum mu jox lislaam soxlawul ay waxtan kat l'islam borom xam-xam la soxla ki nga xam ne su dee wax li waroom xam-xam yi xamit dana jàngal ki nga xam ne xamutoon dara mu mën a xam waaye soxlawuñu waxtaankat boo xam ne ñenn ñi dañoo bàyyi seen i métier féeti woo wax danañ wax luñ xam di wax luñ xamul waaye ya maanaam dem si buñ ko tàmbalee masdar rek dutuñ ko bàyyi dañuy wéy di wax te waroom xam-xam yi wax nañu ne wax moom bu jeex waaye dégg am na fu mu yam sëñ bi tënk na ko ci wax wax ju leer li tax mu ragal wax daa ma a ragal ndax suñu borom mi ngi wax ci alxuraan ne lu ngeen wax rek am na ñu koy ñu koy jël di ko bind lu ngeen wax rek am na ñu koy jël bind ko doonte yéegu leen ko te loolu yomb naa dégg bokk yi indi di ci ci téléphone yi di ko ci def mën naa ko tudd muy crédit mën nañ laa jaay fukki millions yi crédit te téléphone bi lam doon peese du soppi nam toll woon lay toll waaye buy jeexee doo ko yëg am na fu muy dem buy jeex bu crédit bay jeex loo gën a wax muy gën di yées di manqué doo ko yëg du ci feeñ kon nag bu yàlla ne ma yanfidu min qawlin illa ladayhi na atid war nañ koo gëm wax ji moo koy jeexal te mu jeexaat ci pouvoir téléphone bi am na fu muy dem neenut yàlla nee na kon lu ngeen wax rek am na ñu koy fuglu di ko bind yàlla na doon lañ yàlla na doon lu jag rek dellu waxaat nag lu leer na ñu ne sa naktubu ma qaalu lu ngeen wax danañ ko bind yaxal ko mu ne wét su dee noona la mu wéy ba yamal xiyaama su dee ab safaan te boroom teel koo yëg tuub yàlla mën na ko mën na koo far yamxu llaahu ma yasha wa yuthabbit waaye nee na it am na ñoo xam ne dañuy wax ci seeni làmmiñ lu leen neex mën naa am ñu xam ca dara mën naa am ñu bañ caa xam dara kon sëriñ bi noppiloo nañu bare bare bare bare defe ne lañuy wax ma nga jëm kër te jëmul kër defe ne lu lu lu lu lu may la تفك فسنو برمم لفا قراولا تقولون بأفواهكم, بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كوكو يتسب بيخا لما يلفظ من قول إلى لديه رقيب عتيد أكثر نكتب ما قالوا نانوبي أم نجنش لاج دم لاج دون لين طول لاج لاج لمي يوم يوم أم نجنش لاج ndax yàlla nee na woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee leen laa tasalu an asyaa in tubda lakum tasukum li muy yomb yomb moo gën a jafe benn borom xam-xam bu ñuy wax Serigne sàmbay Mbaye daan na waxtaan ba yàgg mu ne ak neexoon lii may waxtaane ku ko xam ñëw laaj ma ci laaj siw na it ñu naan nañ dem ba àgg fa ñuy faye wax bàyyi jëf bëgg jox daraja jëf joo xam ne bëgg a bëgg a jox daraja jëf ci kaw wax te alquran ni mu àttee ay jëf noonu la àttee ay wax wa qaalat alyahudu yadullahi maglulatun gullat aydihim wa lu'inu bima qaalu nee na yahud yi benn bis la ñuy wax ba yàgg rek ñu am ku ñuy ñaawal naan yàlla loxo bi ñoom ñoo ko wax yàlla nee na ñoo ko wax ñoom ab kuuñ la loxo boo déggee ñu ne loxo bi daa kuuñ mooy du joxe yàlla ne loolu rek baat yooyu ñu wax rek ci leen ci leen yàlla sarale yërmandeem boole leen ak ñu leen di lekk ba dugal leen sawara wa lu'inu bima qaalu waaye am na ñooñu jutuñu jëf dara dem aljanna jutuñu jëf dem aljanna wax rek lañ def كجانغ لتملي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصرى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يشتكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا ما وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخل ربنا مع القوم الصالحين نينا أمنا نياري كوريل تي نيغا خامي دوني بوين اي جوليت لو ني تودي اي نصارى اك يهود بوين لا لاجون كان موجي اب جوليت نيل اب يهود امنا شي ني نينا نيام داني اي نصارى لا نصارى اليهود والنصارى مين القران غاني اليهود mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci diine Seydina Moussa ju yàgg ya ñii Seydina Isa alayhi salaam ma salaam ñu ne nasaara yi dañoo xaw a tane ndax ñoom seen xol mi ngi dund ba léegi ndax buñ déglu déglu ba nga convaincre leen convaincre mooy yey leen da ngay tàmbalee gis seen gët yi di taa ñu tàmbalee jooy rek la daloon na an najaasi ba fa sahabatu rasul deme ba jàngal ko ayat qur'aniya yo xamne euh dañ ko dañu lu xar ci ab lancam motax mu dalal len euh ñu leen lu ñu waxati waxat buñ gisee nen bu kenn musta gis mu tollu ne nen yi xamoon ne ab nen a ngi nii nag kaay leen xool li ko waral mooy mooy dëgg gi ñu gis rek te bëgg nañu bu ëllëgee yàlla boole ñu ñu baax ñi alxuraan di nettali yàlla ne seen wax jooju yéene ak wax dañ wax wax ju rafet jooju ne nen a ngi nii kepp fa asabahum allahu bi ma qalu cee leen yàlla faye jannatin tajri min tahti al anhaaru xaalidina fiha wa dalika jazaa'ul muhsinin kon wax des na ci àtte nit ki yóbbu ko sawar walla yóbbu ko aljanna alxuraan la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle ku munta wax lu baax ku xamut lu muy wax sax lay tàmbalee ku xamut lu muy wax na noppi te dégloo ku xam lu muy wax nag na xool na na na bàyyi xel ba xam mi ngi gëm yàlla ba gëm yàlla ak yi gëm yépp xam ne ëllëg yàlla dana ko àtte ci ay waxam su wax jotee mu wax ko nag te noppi من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أم نكو نيو تي النبي صلى الله عليه وسلم نكو دا ما بغا تكتال ما لومو يوبو الجنة لومي ورا ديف با ديم الجنة يننتي بي نكو تيل كي داري لا لا لام نيام دلني على عمل يدخل يدخل الجنة قال أمسك عليك هذا دالي جوخ دا تك لام نيام لوخوم بارامام تي أو لام نيام تيل كي رك نوبيل imam al Ghazali neena wax limi yàq yu tax sëñ bi ne dama ko ragal ragal yalla tax imam al Ghazali neena li wax di yàq posam mënu ko yàq ci birum nit posam day ray ko lek mu day rek mu yam ci mom waya wax day dem fi ba addunay tukki rawati na jamono ji xewlay ak li meuna denc ay wax lépp te nee na nag kii wax ki koy déglu moo tax muy wax su ko kenn nanguwuta déglu du am fu mu waxee li aw ñam di yàq ci biirub nit mën na ko rey su yokkut ci moom dara it ci moom lay yam waaye fa muy mujj ak wu ñam xamees na ko fi aw ñam di mujj xam nañ ko du du fenn fi aw ñam di mujj moom du fenn moom kenn bëggu fa dëkk nee li aw ñam di def nag ci biirub nit rey ko mu faatu moo gën a néew ki ko lekkoon dong lañ yem muy posam waaye wax nag dafay des jirub dund aw nit ñu bari mën nañu ñëw fekk ko fi ndax am na yàlla ñu nekk naa yonent sàngam wax na xaalu li firaawon ñaata at la boobaak léegi te la firaawna waxoon sayidna Muusa tontu ko ko ba léegi waxaale wuñ li fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci ay wax kon boog li tax sëriñ bi ne moom daa ragal wax ndax ki ñuy wax ragal waxal ñaar la muy ki xam ak ki xamut bokk yi nag ki xamut moom moom lañuy war a dimbale di ko jàngal wax na itam ci tombam ñaareel bi ne bu sañoon duñ naagaloo nit ñi du leen duñ desu leen naagaloo ci ne yéen ñëpp na ngeen jëm wala dangeen am lu baax kese kese mu yomb lool ndax xadisu yonent boobu sallallahu alayhi wasallam la jàng bi nee na kenn du dem aljaan aljanna ci jëfam waxaale wuñ ko defu dara amu ci kenn ku jëfë mën a ak lu bari bari ñu ne ko déet xanaa yow kenn bokkoo ca mu ne may digg ba man mii di wax ak yéen rasulullah yéen mën ne yàlla lay lay lay laay yaakaar gannaaw bu ma defee li ma jàpp ne war naa ko def ba noppi la يدخل أحدكم aljannata قالوا wala anta ya رسول الله wala ana illa an أن يتغمدني bi rahmatih kon boog li sëriñ bi moytuloo nit ñi mooy ay waxtaankat nee naa sox lislaam soxlawu ko lépp baax am na ñu ciy wax naan sëriñ bi nee na ko aju ci moom sax aju ci moom nag si mu leen jëm daga nee na laaj na ko ko fekk dañ ko ne yéen ñi ko fekk woon bëgg koo ñee mu ne leen yii xawma murit làmbeet man murit ba sëñ ba xawma moom làmbeet laaj naa ko daal aju ci yow gi ngay wax nuñ koy defee taalluq sëñ bu mag bi ne ko mi ngi mel ne dàll wu joggi dal ak dàll bi dox ba yàgg mooy naaj joggi lam joggi day yem ci dàll yu képp du ko génn fenn su amut xet du mën na faa dugg ak moom ba ba muy saf suñu borom waaye su amee xet yemut ci ko kon jéggi na dàll bi fu mu ko sëmm ñu ne xool leen dal yi daal di koy xeet tàggaleen ko moom fasaas kon bokk sëñ bi soññee na ñu bañ a naaguloo nit ñi ci leen leen te defuñu dara ko ña doon jëf sax yonent bi moo ci jiitu moo jàngale nu ñuy jëfe moom nee na woon lu jëfam bari bari taxut mu yaakaar ne war na caa mën a naagu waaye bi may mujj mooy nee na kenn mënta ànd ak sëñ bi te xamoo yàlla te yañ ca war a xam daan na it kenn munta xam yàlla te summi wa mbubbum bëgg àdduna moom la suñ bu mag bi wax ci masaalikul jinaan taxliya da nga naan futeet mbubbum bëgg àdduna ak li ci aju lépp dem sangu ba set wicc mbub moom nag su ko defee nga sànni ko ca fa ñuy sànni mbalit ma wala nga taal ko ndax boko sané ci malit ma am nañu ko fa fekk man nañ ko soxla fotal ko sal ko waye dang koy lak mu don dom nga jiri ko wala ngas ko sul mu jaax moy taxliya la taxliya mom la sëñ mag bi wax ci masal bu ginnaaw juróom ñetti bayte ngi ne yo xamne teunk na di sëñ boobu doon wax lépp dafa waxut bayit ya ak ayat yi ak quraan ya wala ahadith ya waye lool rek la tek sëriñ bi bi ñu tàmbalee masali bu ginnaaw ba wax mom mom mi tarif téere bi kum doon bam noppee bàkk suñu borom julli ci yonent bi juróom-ñetti bayit yooyu lay teg lay tënk dafa tekk ayat suñu borom bi muy wax ne ya bani aadama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libas taqwa wa libas taqwa dalika xayrun min ayati llah laallahum yadakkarun li tax sëriñ bi jëfandikoo mbubb mooy ba ñi doon nit aadama suñ maam ba muy nekk nit ku nite dara sikku ci moom moo këram xamuñu woon sol ay yére te kenn dawul gis sama rob boobu yàlla rek lañuy ñuy waaye bi ñu defee bàkkaar ba wàcc ci kaw suuf si bàkkaarub lan bu leen lal garab gee kepp laal waxul laal sax bu leen ko jege la wax بلين كو جيغي لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين <coughs> فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وهي بنت ني تشوبت سخ كين كو نيك تامل غيس سي تيري موروم نورانيك سوني بروم بي mun na nag léegi loolu bu mu leen tax dem leen wut lu ngeen sol waaye li nit di sol nag bu bëggee delluwaat fa ngeen dëkkoon mooy libaasu taqwa summi leen bu mu àdduna bu mu ragal yàlla noonu la soog a moom ngay moom la nit def soog a mën bi danañ futeet bu mu teg nale le euh, xam li mu war a xam ci suñu borom soog a mën a ànd ak sëriñ bi سنين نينكو تنك نينكو تامبلا جي الحمد لله الذي منا طلب اخلاص سعي ومراعاه الادب ا لم نلاج موكو موم لم نلاج موي لو نيي ديف رك نانكو كو سيرال موم كين تام تخ لول دنجي ديغ وات كور نيون ديف ني رك تا سامونتي داك تيغي ورا سامونتي اك سا كليفو كو توغو ياو لي ليغي لو يالا ديغا خامني موي خول خول mooy gis li nekk ci mooy gisandoog ñun li ne ci biti mooy gis li ne ci biir xolub nit ak lim namm lépp gis gisandoog nun li ne fàng man yandurul quluba sarair'a duna alladhi minna yakunu zahira man nag li sëriñ bi wax ci wax laay tiit lool du ma ne mag ñi nee nañ du ma ne am na génn góor gu ñëw ci moom du ma ne am na bés waaye moo bind li may wax moo ko bind masalikul jinaan la téere bi tudd ثم الصلاة مع سلام يتبع على الذي غدا يشفع من بفضائل الهدى من بفضائل الهدى تحلى وعن رذائل الردى تخلى كن موم بوم سانت يالا ميغا خاني مو نيو مو ساكو نيو لوغي ديف رك نا يالا تخ يالا مو خام لي نتي لي نكي خلات لا تمو كوي ديف su ko nit ki def ñëpp gisandoo ko yàlla da koy gisandoo ak ñoom yonent bi nga xam ne bu noppee mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam bu ëllëgee moo ñuy tinul suñu diggante ak suñu borom waaye nee na loolu du ndam néeg ba yonent bi ca kaay da ngay fexe bay aw nit ñu ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu blaat waxoon na ko nee na ëllëg lim li li nit di ànd moom xolam sedd mooy yow nga fexe ba bu ëllëgee bu ñu wooyee aw turam nga jóg di def la muy def bañ lan kii mooy kan ana kañ woowoon ba tey ñu naan kii di kër kër di moo ne ci njaboot nee na su boobaa sigil nga ko sagal nga ko muhammadin alkaashifi anna ghumma wa alihi wa sahbihi wal bi nga xam ne laata muy takkaayoo di sol ku ko gis xàmmee ko dafa am lu yàgg teg na li dañ ko taxliya door ko taxliya léegi sax loolu yomb naa xam wax nañu ne ci xam-xam dem nañ ba ndoxum géej mi ñu mën a tàggale ndoxum xorom mi ak ndox mi ba xorom si ak ndox mi ba nit mën koo naan mooy dañuy taxliya xorom si ci ndox mi daal di koy taxliya hada azbun furaatun wa hada milxun ujaaj milxun ujaaj nag xam-xam wane na ne léegi mais naa jël xorom si teg nee jël ndox mi nit naan ko bari na ci réew yi nga xam ne ña ngay dox bu wér ñu ko def ba jàll ko bu yàgg xéewal yàlla lay wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa li feeg kuy jànkoon teg seytaane mi ngi koy jaare ci xeex ba kanam ak xeexak ak bànneexam kon faw nit daan kanam ak bànneexam soog a mën dugg ci buntub taxliya ak taxli bu noppee dugg génn ci buntub taxliya génn dugg ci buntub taxliya soo ko mën a ànd ak sëriñ bi daan sa bakkan ak sa bànneex bakkan ak bànneex nag alal ju lay jox ndax la ngay wax ca la bokk alal alal ju lay jox ngay wax loo xamul loo xamul ca la bokk ba tax sëriñ bi ragal wax wa la man yutahiru janaana من العيوب النور والرضوان لفيك نيتي دان كونت شيطان جاري كو سي دان بكنا ماك بانيخم دي ووت قلب بو موتي سي ايب نغرم دوجو تي يالنا خيوال اك موتي دال سي يونت بي صلى الله عليه وسلم لو دو في جوغي فاو ام ني ديكنت لي شيغي euh آه، nit a ngi bàyyi nit ñi ak liñ yor di wuti mii borom nit ñi ak liñ yor li feeg mi ngi am yàlla na xéewal ak mucc dal ci yonent bi sallallahu man lam yaltafit lil xalq yaxwi l wusula bi euh, ren wana na moom mooy boroom minbar yi ku fa nekk di def lu jag moo la fa teg ku fa nekk ne ci leneen it bu ko xoolee moom walla nit ñi àtte la ba ne kii bokkut ak ki sëriñ bi bëgg mu wax bu mu rus na delloo na bokk tànkam bu ko defee dana mucc muccaay lañu ñu bari ndax xam ngim xam kim doon moo tax mu ne wërta noppi doonte munta wax ndax ragal ragal naa wax waaye bokk yi lem na ci mag ñi la bokk du ay at rek moo ko ci yóbbu ndax ñim tudde mag ñi ci ay at yàgg nañ koo jox cër ndax ku ne xam ne moom la ñu faloon fii imaam bi suñ motu la mbàkk jógee nga fi te xam fi nit ki toll dafa am solo balaa kenn xam boppam day xam yàlla euh, <coughs> di ko mag ñi tànn di ko boole ci seen daayira ñépp a ngi fi woon ñu ko tànn waaye gis nañ ko ndax yiñ fekk te yeggu dara bi fi Alaaji Bara nekkee gis nañ mu def noo xam ne moo ko jëkk def te gisatuñ ku ko def muy ko toll ni moom jiite kër gu toll ne gi jiite tudduguma aw turam ñepp ko xam jërëm mënaan diw ñew tak ak laxasaayam boole foog yam ca boole ak lam ca lam ca wax lam ca boole ci ay kaddu ba léegi sii ku ko bëgg a déglu mën na koo déglu kooku xam na bu baax a baax a baax lan moo nekk ci wax ak lan mooy ab yan ndax kum ko war a defal kum war a topp rek topp na ko jamono bi fi sëñ euh, Sidi Moxtar nekkee moom El Hadj Bara radiyallahu anhu moom sëñ Sidi Muxtaar tolloon na jamono yoo xam ne léeg-léeg gis ko xaw a jafe ndax ay xalawaatam ak wan nit ñeeg li na ci seeni yox waaye lu ne kët na jon xel daj sëñ Muntaxa ma tudd ko lu mu ca man dana ko def lu mu ci mën a lijjanti lijjantiku ba yaakaar yépp daa ko xam yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko moo ne day <clears throat> euh, bi mu koy waxet keneen ku mu ne woon waxal nangam waxal nangam mu wax ko waaye bokk yi nit li fekk mi gis ay magam day defee ne gone la mooy yaram war naa daw ci ne ku fa sës sës fa bokk yi loolu yëmut ci loolu mu yor jële ko ci yeneen loxo kese waaye ku dem ba yor kër nekk fa gone ku jaaxle woo saw tur ne bàyyi xamal ci yan bi nga bokk képp koo xam ne it lu mu néew néew ay benn benn topp na la it na nga xam ne yan bi sëñ bi yoonu ca nga yaram te ëllëg a ngi ñëw bàyyi na ko xel bu baax waqifuhum innahum mas'ulun même ci alxuraan alxuraan nee aw nit danañu romb nit ñi jëm aljanna di ay kilifa mbooloo mu bari jub taxaw ne yàlla kee di dem ak ñee dem bu ñu demee aljanna danañu jaaxal ci sab at mu ne lu tax laaj jëm lañ koy laaj tekkiwul ñàkk xam te moo demee noonu atteeb adduna bii nag kiy laaj dana laaj lu mu xamul dara waaye yàlla moom ab laajam tekkiwul ñàkk xam ñu ne ko kee de yoon wam jaaroon di jaamu yàlla ci néegam moom kepp jàng alxuraanam def salawaat ala nabiam te yàlla tax suñu ko digaloon ñu def ko kon ñu ne coono yi ñu nekk mu ne lu mu doon def ak yéen ñu ne moom daal daal nañu laaj ñu di ko jox lañ ko daal jox duñ duñ ko laaj foo koy yóbbu moom it duñ daawuñu wax fu mu ko jëmee indi leen indi leen dong leen wax bàyyi nag suñu bakkan ñu su ko defee kon bu demee aljanna ci melokaanam mais lu ñu jaaxal lay nekk yàlla na déet nee leen nañ taxaw ñu tàmbar seen biir càmbar càmbar mbokk yi ku ko xam ca sa kër ngay tàmbalee jël sa dégg nga ni nga jël sa responsabilité mooy càmbar mooy lan mooy mbaar yi nga xam ne dañuy liggéey ci wurus duñ bale duñ buub di sànni waaye dañuy bale ci ab koñ am na ñoo xam ne dañuy ñëw ne ko jaay ma mbalit mi jaay ma mbuubit mi mu jaay leen suuf sax ñu tan ñu tonni ko yóbbu dem ci am ndox mu bari loolu moo tudd càmbar soo ci defee ndox lu cay wurus rek day day dik su ko defé ñu yóbbu jaay lool nak bokk yi kuko suñu borom def chamber ay mbiram dana ko nak mana na gor gor lu fi def ni serigne bi def sa bo waré wax nga jëlal sa bop kaddu bi ku def jaan wacc ku defut jaanam wacc nga déssé ko waye mënu ko lay ëlëk nak waxuma ko yàlla na yàlla defal dégg ak topp te muusal ñu seytaane ki pakkam aljanna moom yi nag mu jëkkee ni ko yàlla misaale yombut a dem aljannatu allati waida al tajri min taxtiha al anhar ukluha daiman wa zilluha aljanna ji nga xam luy naataange rek ma nga fa te doo dem doo soxla lekk te amoo amul guddii amul beccet lépp ker la يالمن شي الله بوي انك تلك عقبة الذين اتقوا جاي جارت يورو نت خم سين بروم فوتي مبوم ادنا سن أه، تخلية قبل التحليا نيوم لاكو فا يالا باي الذين امنوا وعملوا الصالحات تنين يالا لم واخ دو ab atteem amut recours amul cassation wallahu yaxkumu la muaqiba li xukm bu ñuy atte nag yàlla nañu atte ci yërmandeem te fekkoon nag góor góorlu nañ suñ kem kàttan yàlla yàggal sëriñ bi te yàgg ko bàyyi ak am xelam te àggaleel ko ay naalam te àggaleel ko ay yéeneem lu baax kese lay yéeneem moom la bëggal nit ñi it moo ko tax a jël te yaakaar naa ne dutu ko bàyyi lu ko ñor lu nekk moo koy waxal boppam ndax xam na ne si yan bi àgg naa fa ma ngi àggoon samay at nangam la loolu moom mbokk yi lu daw yaram la lu tiis la lu jafee wax la it yàlla gën a yàggal te bàyyi ko ci te itam saa bu geesoo gis ñu si ginnaaw يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين